sallallahu alayhi wa sallam وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax ne tey de am nañ kenn ci euh, puis xadaratul ibrahimiya waaw xadaratul fayda tijaaniya nga xamante ne mu nekk al allaam cheikh oustaz ahmed ba mu doon kenn ci nga xamante ne lislaam dina ko puukaroo adduna bi yëpp nañ ko puukaroo ci xam-xam ci wasaare xam-xam ci joxe ko ci anam bu gën a rafet ñu de wax dëgg yàlla mun nañ wax ci moom lu bëree bari ndax euh, dëkk nañ dëkk nañ ak moom lu mat quatre ans ci Sacré-Cœur te loolu yëpp kenn waralu ko ku dul Mawlaatuna Cheikh Maram Ibrahima Niass ndax dañu tolloon benn moment boo xamante ne dafa soxloon oustaz bu war ñëw pour ñëw di ñu jàngal majalis mu contacté imam ka di magam di gorom Imaam Ka ne ko am na kenn koo xamante ne kooku bu ñëwee fii moom di nga kontaan torop mu ne ko waaye nag dafa nekk ci ay loxo ci ki ñu wax Cheikh Moustapha Ka nga xamante ne gaañu na yaakaar naa daaw a jékki xaw ma daaw ci saa rek dafa fa fa kii demee wokk ko mu ne ko ah doomu baay moom du soxla. man ma mayit yi mu xaddam bu baax boobu yàlla na yàlla dolli leeram ci barsax moom tamit mu daal di bàyyi oustaz mu ñëw jour boobu maa ngi fàttaliku man la yaa bu yebal man ak sama suñu benn mag bu ñu wax Lamine Thiam ñu dem jëli ko indi ko mu nekk ak ñun dara su mu njëkk a joxe yaa bi def ci kontaan torop bane ne oustaz dollil li nga dan joxe boobu diwaani sitt lañ njëkk jàngale ci Mermoz ci kaas ba wallaay mu doon euh, yaa kontaan mu nekkoon koo xamante ne man sama xarit la woon ndax mu ñëwee bokk naa ci nga xamante ne yaa booy daf ñu soññoon ne nañ fexe di jàng ci moom jàng nañ ci moom ay téere yu bari yoo xamante ne bu ma la ko doon limal tey du jeex ci fiq ci siira ci luxa luxa larabia lépp loo xamante ne nit war na ko xam ci booy tere alquran war ko jàng yëpp saas jàngal nañu ko. waaw xam-xam bi ñuy wax ci moom moom moom àdduna bi yëpp seede nañ loolu ci moom te loolu yëpp lu ko waral mooy daf ko doon joxe ci anam bu gën a rafet kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla seddal suuf ci kawam yàlla. yërëm ko xare ko aljanna dañu euh, fekkee nag insaan yi suñu xol yi tooy na fees na waaye xam naa ne du ñàkk dinañ gën a am jotaay bu gën a yaatu boo xamante ne dinañ ci wax lu bëri bëri waaw oustaz daal boo duñ ko doon gàttal daal da nga xam ne na nit la nga xamante ne daal liggéeyal na lislaam liggéeyal na euh, tijaaniya liggéeyal na ibrahimiya ba ñëpp naw ko ci xam-xam ci njub ci ci ci ci ci ci dal kon nag ñu ngi ñaan yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee yàlla na ko yàlla yërëm yàlla xare ko àjjana ñu ngi nekk ak suñ oustaz ba oustaz ñu ngi nekk ak suñ oustaz euh, Ali Tahir euh, njaboot yaa bay Seyda daaru Quran ñëpp ñëpp ñu ngi fii macha allah ñu ngi nekkoon ak moom moom mun nga ko jël moom tamit incha allah mu sànni ci ay kàddu waaye daal moment bu ñu nekk nii de euh, wax dafay jafe waaye daal ñu ngi leen xamal ne oustaz daal dem na waaye mi ngi fii ndax euh, dem na ci jëmm waaye ci baateen mi ngi fi ndax lim fi wesaara ci xam-xam dinañ continuer di ko euh, jàng di ko jàngale ba loolu continuer incha allah jërëjëf. ñëpp baax na baax na mboolem koo xam ne teew nga mboolem koo xam ne teew nga ak ñu bëgg a teew te amuñu temps bi am na loo seq ak Oustaz Ahmed mu nekk ñu fi teew ñëpp kenn ku si nekk xam nañ ne am na loo seq ak Oustaz Ahmed Ba cofeel dëgg mu ngi sa diggante yow ak Oustaz Ahmed Ba gisee tey ñu gàttalee nii moom bu ngeen gisee ñu gàttale ko nii fu ñu jëm dafa sori fu ñu jëm dafa sori te jotaay bi daanaka dafa tënku te jotaay bi daanaka dafa tënku kilifa yaa ngi foofu te kilifa yaa ngi foofu donte ay kilifa yaa ngi fii. kilifa gënul nekk jullit. mu ne kilifa gënta nekk jullit. kilifa gënul nekk tijaan. kilifa gënta nekk tijaan. kilifa gënul nga nekk taalibe Maulana. mu ne kilifa gënul nga nekk taalibe Maulana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñëpp nag ñu ñu gis ak ñu ñu gisul ak. képp koo xam ne teew nga fi. ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi gis ak ñu gisul. ñu ngi nuyu euh, président directeur hôpital bi monsieur Daaf. mu ne ñu ngi nuyu monsieur Daaf. président hôpital bi xam ne yombalal nañu ko. ak mbir mi nga xam te ne yombalal nañu ko. Eh, eh, ñu ngi ñu ngi nuyu mboolem kilifa rek boo xam ne yaa ngi fi. ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi nii teew fii nii. Oustaz Ba nag Oustaz Ba ñëpp la. mu ne Oustaz Ahmed Ba moom Oustaz Ahmed Ba ñëpp la. Oustaz Ahmad Ba ñëpp la. Oustaz Ahmad Ba ñëpp la. képp ku nekk rek am na loo xam ci moom am na loo war a wax ci moom. kenn ku nekk. am na loo xam ci moom am na loo taataan ci moom. am na loo mën a wax ci moom waaye ñu ngi ñaan yàlla. waaye ñu ngi ñaan yàlla. ñu jël kaddu. ñu jël kaddu. ak ñu jëlil kaddu yëpp ak ñu jëlu kaddu yëpp. ñu soppi wax bi rek ñu ñaanal ko yàlla. ñu soppi wax bi yëpp def ko ñaan te du ko ñaan yàlla. xam naa ne sax loolu mooy am. mu ne xam naa ne sax incha allah ñaan boobu mooy am te jiitu na ci. ñu ngi teew ak fii nag rakkam. ñu ngi teew fii ak rakkam ñu gën ko xam ci Abdourahman Abdourahman wala sëñ Daara. mu nekk borom xam-xam. mu nekk borom xam-xam. ilmu shariati. ilmu shariati. wala xaqiqati. wala xaqiqati. mu yore daaraam. mu yore fële ca Nouakchott. mu yore daaraam fële ca Nouakchott. man mën nañu wax ne tey. mën nañoo wax ne tey. yàlla jël na ustaaz. yàlla jël na ustaaz. waaye nag ma ma nansax min ayatin aw nansiha naati bi xayrin minha. mu ne waaye nag yàlla nee na ne ma nansax min ayatin aw nansiha naati bi xayrin minha. aw misliha aw misliha. ñu ngi seddale suñu bët kon ñu ngi weddale suñu bët yi ci Oustaz Ibrahima a Abdourahmane Abdourahmane sëñ sëñ Daara ñu ngi koy séddale ak mboolem ñoo xam ne rek teew nañ ñu ngi koy séddale ak mboolem ñoo xam ne teew nañ fii nii ñu jël kaddu bi jox ko sëriñ bi kon ñu jël kaddu bi teg ko ci loxo euh, ma Seydi Mawlana monsieur Daaf monsieur Daaf alhamdulilah wa salaamu aleykum mu ne alhamdulilah wa salaamu wa rahmatullah avant monsieur Daaf di jël kaddu mu ne avant monsieur Daam euh, Daam di jël kaddu euh, Barham Seck Seydi Barham Seck daf maa woo léegi waaw mu ne Barham Seck da ko woo léegi nee na mu ngi Euh, président Souroudine waaw département de Dakar. département de Dakar. daf maa woo léegi nee na. daf ko woo léegi nee na. mu ngi noonu ànd ak Cheikh Abdoulahi mu baaba mu ngi noonu di ànd ak Cheikh Abdoulahi mu baaba di mag ci Cheikh Nourou di nga xam ne moo fi teewaloon moo fi teewaloon baaba nga xam ne moo fi teewaloon baaba liñ sàkku ci ñun moo ne liñ sàkku ci ñun mooy nañ xaar luñ yàkkamti yàkkamti moo ne nañ xaar liñ yëpp liñ yàkkamti ci ndigalu baaba ci ndigalu baaba ñoom ñu agsi fii ñoom ñuy agsi ba def liñ a def ba def def su ko defee ñu door a ko defee ñu door a dem wax na ko Seydou Nourou neen wax na ko Nourou kon nee na nañ def noonu sëñ Nourou nee na ko nañ def léegi ñu def sa Thierno monsieur Daaf ko ñu def jox sëñ euh, Thierno monsieur Daaf loolu dina insha li nee nañ Mahmoud li mooy jël place monsieur Daaf mooy mooy ci kàddoom jinnu ko haalde pulaarde aɗa nana pulaar min mi nanana pulaar aɗa nana jolfe mi nanana wolof eyi wiide mi salmini e inde directeur hôpital hono li mahmoud ly mahmoud ly tokkanel mahmoud ly mahmoud ly moom moo jël kaddu monsieur Daaf mooy ki yore hôpital bi mooy directeur bi monsieur Daaf ko miñam nee na monsieur Daaf rakkam la meneen jiitu wuro mu ne ñoom ñoo bokk benn dëkk menen jeyda mu ne ñoom ñoo bokk benn dëkk ɗum noon so wiyomi haala inde makko mu ne bu fekkee ñëw na fii teew mu ne na wax ci kàddoom eyi eh, ɗum koko haani waɗi mu ne loolu day fekk lu war la ala kulli haalin min jiɗi ko raɓɓiɗinde mu ne li ci maanaam wax bi daal da koy gàttal rek omo salmina dental mu ne mu ngi nuyu mbokk yëpp omo andina on mu ne mu ngi leen di xam mu ngi ñuy xamal ne oɗo sun ndeɗo sunaare mu ne eh, wàññeeku bi nga xam ne yàlla teg nañu ko tey ku ko bokk ha ah, a yegg mi nga xam ne mooy directeur hôpital ko almuuɗo e galle mu ne moom taaliba la ci kër gi waa kër Cheikh Ibrahima Niass wona directeur tan de mu ne nekkul ne directeur kese la ala koy inde almudaagal waaye nag ci turu nekk taaliba kadi ko jotondirɗo e oustaz mu ne aussi tamit ku jokko woon ku jokkoo woon ak oustaz la kamɓe jooɗottono eɓe mbadda wasifa mu ne ñoo di wasifa omo teddini oustaz mu ku yëg oustaz la woon ɗum noon hannde omo renda e mee meɗen mu ne mu ngi bokk ak ñun omo fecca e meɗen mu ne mu ngi seddoo ak ñun ndeɗo nde mu ne li nga xam ne li yàlla wàccee ci ñun funare ndo jippani ko l'islam mu ne li mu wàccee ci ñun ndogal bi dafa amala ci mbooleem l'islam jippani ko tijaniya foof mu ne amala ci mbooleem tijaniya yi jippani fof ko ashabul faydati mu ne amala tamit ci ahlu Cheikh Ibrahima Niass ɗum noon eɗen mbiya inna lillahi wa mm, ilayhi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi yàlla ñeel na ko li mu téye waaye ñeel na ko tamit li mu bàyyi di dox wallahi alladina idaa eh, asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ɗum ɗo nee na yàlla nee na toujours mu ngi fàttali ci alquran ñi nga xam ne lu mel ni dal na leen ɗum ɗo ko musiba mu ne musiba la ndax deew borom xam-xam musiba la allah wi ko fa asabat ko musibatul mawt musi mawde mayde ko musiba mayde tan manam dee rek musiba la musiba noon saka musiba mayde ganndo mm, musiba la la siya nag musiba koo xam ne nitu xam-xam la ganndo kadi wona ganndo tan ko ganndo qur'ana ganndo sharia ganndo zahir ganndo batin ganndo allah mu borom xam-xam la ilmu shariati wal haqiqati wal faydati gandinoowo allah kati mu ne tamit mu rabbi la macha allah ku xam le yàlla la ndax xam naa ne buñ doon compté tey ñi mu ijaazal mm. yaakaar naa ay téeméeri téeméeri la waxuma nag ñi nga xam ne ñooñ la tarbiya minen almuɓe ɓe komin koolimu komin koolaki ɗum koyaami mu ne ñun ko wóoloo wóoluñ ko suñu bopp ndax noonu la mën a mel mosa mel naka jekk sa sëriñ nga gën a mën a wóolu sa bop woni finde mum ko ƴiyam nan ɗo cheikh ibrahima mu ne firi li muy wax doomam moo ngi fii tudd Cheikh Ibrahim. ndew yi di tarbinaadi. mu ne bu mu bëggee xam yàlla o wi ko baaba mboɗi tarbinade mu ne dafa wax ne papam man bëgg na tarbiya mbimi mimi tarbintama ya koolimi hannde ko oustaz ahmad mu ne duma la tarbiya ki ma wóolu mooy mawlaay oustaz ahmad ba mbaddu memen oustaz mu ne mu boole ko oustaz o heɓi fatu koye juuɗe oustaz mu ne mu am fatu ci oustaz omo jogori yaadude e moon hannde ha mu ne inchallah dana ànd ak ñun tey ba wonano nene makko wona kattanɗo min hoore mi yahano mu ne bu nekkutoon ne yaay ji dafa xaw a jagati mu moom tamit dana ànd ak ene yetta on onon fof mone directeur mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp omo gis momon e hoore makko mu ngi dalal ñëpp omo andina on o jooɗi ɗo ko jonde almuɗo mu toog dafi toog toogaayu nekk taalibe jonde banndiraaɗo kadi woni toogaayu mbokkoo ala kulli haalin ko yidde raɓɓi ɗinde halifaaɓe ne mune nag dañuy gàttade ndax loolu sax lañ gën a bëgg ndax ay xalifa ñoo ngi fi te mm. jotaade yiɗaano so wonaa o yamiri umminde konngol am e moom buggutoon sax kaddu jël kaddu waaye comme moo ko jox kaddu moo tax fokk mu jël kàddu wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullah ñaanal ustaas baax yàlla dolli ko yërmande yàlla yurmuma yaafo amiin amiin amiin yo allah wanmo malaaɗo yo allah wanmo koddiɗo annabi sallah sallam oɗo ko malaaɗo malaaɗo kono way ni wallahi malu ngu o heeɓi ɗum ɗum ɗo ko rahatun liman kad saida noon cheikh ibrahim wi maayde ko fooftere wonande malaman kad rachada ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru dawana alhamdulillahi mune ñi ngi sant yàlla ci ndogalam bàyyi micro jox jox jox kii rek mu téye ko téléphone bi. wallaay jëkkër na mu ne itamit ñu ngi nangu ndogal yi nga xam ni moom la yàlla dogal ci sunu kaw tey. jërëjëf waay jërëjëf ñoo ngi ci hôpital bi. muy oustaz Ahmad Ba. Cheikh Mouhamadul Kabir nee na borom xam-xam moo dem. mu ne ñu xam ñun ñëpp ne bibliothèque moom moo daanu tey. nee na ku nekkoon mu xaamilinu fayda la moom moo daanu tey ku doon défendre fay tariqa tijaaniya moom moo dem ku doon défendre diine l'islam moo dem mu ne ku baax dem na waaw kii kay nee na dugg ci baax Ahmadul Kabir nee na oustaz Ahmad ba mii ñoom seen doomu baay la ndax nee na baayam ci kër Thierno Alxasan Dem la nekkoon nee na Thierno Alxasan Dem moom moo tarbiya baayam Oustaz Ahmad Ba Thierno moom moo ko jox biir de Tijaaniya njëkk ak muy laxas di dem boggee ci Thierno Abdoulaye Dia pour jàngi mu ne kóllëre googu mu motal ko saxal ko ba yàlla indi ndogalam tey ci sunu biir Thierno Mouhamadul Kabir nee kilifa yi fi teew yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen jaale leera sunu xarit wala ren Cheikh Mouhamadul Mamoun Issa Diop teew na ci mbooloo mi mu ne depuis bi mu yëgee xibaar bi fii minute bu nekk laxasa bu nekk mi ngi koy génneeku di ko woo di ko xam fu yëf yi ndax nee na oustaz mi ngi xaritam la woon wóllëreem la woon nee na ñëw na teew ak ñun ànd ay rakkam ak délégation bu takku bu mu indaale imaam Cheikh Ahmad Tidiane Ndiaye bu Huda al Huda teew na fi ak mbooleem waa Madinatul Huda yépp teew nañu mu ne kon oustaz mu ne ñu ngi wax wax ji du dafay gàtt du gudd ndax nee na ñu ngi jëm fu sori te naaj baa ngi commencé tàng te ay kilifa ñoo fi teew ñu mën a yeeweeku dem Ceerno Mouhamadul Kabir Xasan dem nee na mi ngi dañuy tënk kàddu rek nee na bi nga ànd ak rakkam mooy Cheikh Oumar Hassan Dem ak oustaz As Ñang ak man mii ci rakkam yi laa bokk Thierno Mahmoud Thiam ñu ne ñëpp ñëpp ñu ngi teew fii ak Cheikh Ousmane Diop ñaa Thierno Mouhamadul Kabir mi ngi ànd ak ñoom ñëpp teew ci jotaay bi nee na Ceerno Mouhamadul Abdoul Baqi dem ñoom ñëpp ña nga Kaolack ñoom it di waajal pour dem ca dëkk ba Ceerno Mouhamadul Kabir nee na wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah information yi may jot booy joxe rek su ko defee kilifa yaa ngi nii ñoom ñooy décidé léegi léegi encore maanaam euh, dañ maa woon ne ma le ministre El Hadj Malick Ndour le ministre Pape Malick dafa nekk di ñëw dafa woote carrément ne nañ ko xaar dafa bëgg a fekkee am na xaj na lu tax mu bëgg ñu xaar ko léegi nag loolu dama koy joxe rek pour information bu fekkee kilifa yi d'accord nañ ci su ko defee ñu xaar bu fekkee kilifa yi tam dañoo wax ne d'accord ci ba tey ah su ko defee ñu kàddu gi ci euh, Seydou Nourou rek ah baax na da ci bàyyi xel sax tey tey ko noonu tey ko noonu rek après yow ah biir asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi Chérif mu ngi leen di nuyu ginnaaw bi mu jullee ci yéen teel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéegaleen micro bi. di ziara Maulana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif as-sahib al-fayda Tidiane Cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niass nee na mu ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen ñëpp mu ngi leen di nuyu. mu ne mu ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xamante ne ñu ngi fi teew. mu ci jiital seetu Maulana Cheikh al islam alxaaji Ibrahima Ñas nga xam ne ñoo fi teew bi muy wax naa muy delloo kàddu bi ci kàddu suñu borom subhaana tabaaraka wa taala mi nga xam ne newoon na ne dinañu nattu ci lépp te nattu weesuwut mu jox la ki nga xamante ne nag ci sa ruux ci sa lépp la dund mu jël jël na ko faqat yóbbu ko kon mu ngi naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna yàlla teg na ci ulaika alayhim salawatun min rabbihim leen julli ci yàlla doy na la siyama ay salawatun min rabbihim mu ne yàlla suñ borom wax na ne carrément ulaika alayhim salawatun min rabbihim kenn rek doy na waxatuma laa nekk koo xamante ne dafa dajal mbooloo kon rawatina ne mbooloo yi nga xamante ne ne ñu ngi teew اليوم الأمة الإسلامية فقدت mu ne tey bésam tey jii nii mu aal umma islamiya bi yëpp fépp ñëpp a ñàkk tey jii nii. الطريقة التجانية فقدت مدافعا ومنافحا عنها mu naan tariqata tijaani mi nga xamante ne yàlla suñ borom subhaanahu wa tabaaraka wa taala dogaloon na Oustaz Ahmed Ba yam ci doon yéegu ak eh, fa mu jëmee mbir mi ak fa mu àgg ak nit ñi lépp tey jii nii tariqa tijaane tey moom incha allah tey moom tamit ñàkk na lu bëri tey. والفيضة التجارية الإبراهيمية فقدت هي أيضا ركنا من أركانها. بسم الله. والفيضة التجارية أيضا فقدت ركنا من أركانها. mu ne faydu bi ñàkk na ponk boo xam ne ponk bu mag la ci ay ponkam. والشعر العربي الفصيح فقد اليوم من كان ينطق به بفصاحة وينطق به بلغة الخادي كأنما هو عربي قحط mu ne woykati arab yi ñàkk nañ ponkal bu màgg boo xam ne ci woyam fasaxat day feeñ ak balaaxa mu ne kooku la mbooleem chanra yu ñàkk tey wa nahnu muridina ashab alcheikh faqadna anisan kunna nastamiu li muhadaratihi ولكلامه عن الشيخ فيثلج بذلك صدورنا mu ne rawatina ñun taalibe Cheikh Ibrahim Niass yi ñàkk nañ suñu wéttal ñàkk nañ koo xam ne mu laa ñu laaye biir di ñu jubal di ñu tegtal yoonu ñub ak yoonu mbëggeelu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu لما سمعت الخبر حتى الآن جاءت اتصالات من بلاد دول عربية كثيرة mu ne moom daal ba mu déggee xibaar yi ba léegi mboolem réewu arab yi ñëpp koy woo téléphone di ko laaj loolu daal nan la mën a nekkee الأستاذ أحمد باه كان أعطى نفسه للعلم وسخر نفسه لخدمة العلم ولخدمة الطريقة ولنصرة الفيضان الإبراهيم mu ne Oustaz Ahmed Ba doomu xam-xam la te loolu la Oustaz Ibrahima Thiam waxoon nakaaru quumu fa najlul ilmi qad wulida min sulbi xadmi wal kadmi fa waa ajaba kun nag doomu xam-xam ñàkk nañ ko tey muy Oustaz Ahmed Ba فلذلك نعزي فيه شيخنا شيخ العلم cheikh az-zuhdi cheikh at-tasawuf Mawlaay cheikh Mouhamed al-Mahi ibn Cheikh Ibrahim Niass. mu ne loolu nag moo tax ki nga xam ne mooy borom xam-xam bi mooy ki gën a dëddu àdduna mooy ki gën a jub mooy xaadimul umma cheikh Mouhamed al-Mahi loolu la seede ci oustaz Ahmed Ba. yuazzihi fiihi yuazzihi fiihi ñu ngi koy jaale ci loolu ñu ngi koy jaale ci ñàkk-ñàkk bi ñàkk loolu liannahu huwa aalimun wal ustaz Ahmad Ba aalimun fa lidalika al aalimu yuazza fiihi al aalim mu ne ndax moom xalifa bi borom xam-xam la waaye ustaz Ahmed borom xam-xam la léegi moo loolu moo tax borom xam-xam mu ngi jaale borom xam-xam yuazzi fiihi aydan jamia abna al cheikh mu ne waaye nag ñu ngi cee jaale mboolem doomu Cheikh Ibrahim Niass ndax ñoom ñoo ñàkk defandkat ñu ngi ci jaale mboolem muqaddam Cheikh Ibrahim Niass ak fu ñu mën a nekk ci alam bi. wa hada faqat yanbaghi ala al-muqaddimin an yanfiru nahwa al-ustaz Ahmed Ba. mu ne nag mboolem muqaddam yi lii war na si ñoom dars ñi mel ni al-ustaz Ahmed Ba si royukaay. al-ustaz Ahmed Ba wa in kana qasara umruhu lakin mu ne ustaz Ahmed Ba dina kënoon sax ay atam gàtt na comme ni nga ko xamee juróom fukki at ak benn. waaye nag jëfam moom dëgg-dëgg passé na adduna bi li ann ilmuhu baaqin ndax moom xam-xamam dafay des wa difaahu an tariqa baaqin mbooleem li man defaa ni tariqa bi dafay des idan kullu man rajaca ila dalika yajidu ma yatlubu ku nag képp koo xam ne bëgg ngay dellu si loolu rek boo delloo lépp loo doon soxla da nga ko am ndax lépp des na fi idan man kaana dalika xaaluhu fala yamuutu bi mawtihi mu ne képp képp koo xam ne sa xaal loolu la xam-xam ak njub ak mbaax boo dee deewoo ndax sa lépp a ngi fi des fa al usbuu al maadi mu ne semaine bii passé tuufiya aydan gaañu na ba léegi أحد مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان تتقك يندل محمد صلى الله عليه وسلم أحد الذاكرين الكبار كان تبونك اللي خمنا تدوك ديال الله نيوم أحد العارفين الكبار كان تبونك اللي خمنا برام عارف بلا يرون كو خم يالا لون ابن الولي الكامل العارف دوم ولي بمت سك عارف بلا بمت سك xafiidul waliyil aarif. doomi sëtu wali bu mat sëkk aarif bu mat sëkk. xafiidu xafiidi al waliyil aarif. wal kaamil sëtu sëtu sët koo xam ne waliyu la aarif la kaamil la. ذلك هو سيدي عبد الله بن المشري kooku xam ngeen ko mooy Cheikh Abdoulahi doomu Alhaaji Mouhamadou Michri dan Abdoulahi ibnu Alhaaji Michri Abdoulahi ibnu Alhaaji Michri Alhaaji Michri ibnu Seyidi Mouhamadou Michri Alhaaji Michri ibnu Cheikh Mouhamadou Michri Alkabir bi ngeen xamoon Seyidi Mouhamadou Michri ibnu Cheikh Alhaaji Abdoulahi Seyidi Mouhamadou Michri ibnu Cheikh Alhaaji Abdoulahi fa alaaqatuhum maa Cheikh ñoom seen relation ak sëriñ bi Cheikh Ibrahim Niass alaaqatu xafidin an abin an jaddin mooy alaaqa baay ci maam ak ay maam te aydan kulluhum aarifuna billah te ñoom ñëpp rek ay aarif billahi lañ wa huwa abdullahi hada mu ne abdullahi mii lamma tuwuffiya ba mu gaañoo qaalat uh, fiihi zeynabu binti cheikh benn soxna bi ñuy wax zeynab bintu uh, doomu sëriñ bi moo wax qaalat anna abdullahi maata yowma futiha alayhi mu ne abdullahi ma génn àdduna bés bi nga xam ne la war a génn àdduna uh, ci la am foto ko idan lan nantahi min dikraahu wa mudakaratihi mu ne duñ bin mukk di ko fàttaliku ak di waxtaane ay jëfam isbuun faqat weer nag la wa yaxallu bina hada almusaab al axir loolu nag beneen xew-xew bu rëy wàcc suñ kanam muy dem ak murabbil qawmi al ustaaz Ahmed Ba usibna fi dikri wa fi lmadxi wa fi lilmi kon nag ñu ngi nattuhu ci musiba ci xam-xam ci lépp wa taawidu rijal saab ñu ngi ak dana ay góor yu màgg تعويض الرجال الرجل إذا مات mu ne góor su génnee àdduna تعويضه صعب mu ne pour nga di remplace bi dafay métti لكن في حضرة الشيخ waaye nag pépp Cheikh Ibrahim Niass moom كل شيء موجود lépp rek mu ngi fi dara manqué wut fi نسأل الله أن يقي فينا بركته ñu ngi ñaan yàlla mu bàyyee su ñun barke ولا يفتنا بعده bu mu ñu natt mukk gannaaw ga wa yubarik fi iyaalihi yàlla barkeel si njaboot gi wa ahfaadihi ak mbooleem ay sëtam wa ashaabihi ak mbooleem ay ay soppeem ak ay taalibeem وايضا المشايخ الموجودين هناك ak sëriñ ñi nga xam ne ñu ngi si gannaaw muy Cheikh Mouhamadul Kabir وباقي المقدمين جميعا مقدمي الشيخ mboolem muqaddami Cheikh Ibrahim ñi si nga xam ne ñoo toog ci déngri bi الله يحفظهم yéen yàlla wattu leen ويطيل في أعمارهم yàlla guddal seen dund mu bàyyi leen ñu nekk koom-koom pour diina ji ak pour pour tarixa bi jaale ci tur waa Mauritanie yëpp moom nee na mu ngi jaale ci làmmiñu waa Mauritanie yëpp ndax euh, Ahmed Oustaz Ahmed Ba kaana indana hunaak fi macdamuna. ndax Oustaz Ahmed Ba ñoom ñoo nekkoon ca Macdamoulaan. wa nashhadu lahu bil ilmi wa bi hubbil ilm. ñu ngi koy seedeel xam-xam ak bëgg xam-xam. bil amsi al-mauritaniyiin kullan yattasiluuna yu'azzuuna fiihi. démb mboolem waa Mauritanie rek ñu ngi koy woo di ko jaale ci loolu. ولا لا أطيل الكلام kon nag moom bëgg guddal kaddu gi وكل منكم ممتلئ قلبه ñun ñëpp suñu xol mi ngi fees dell وعقله suñu xel مما يمكن أن يقول في الأستاذ أحمد képp ku nekk rek am na loo mën a wax lu la doy ci Oustaz Ahmed Bami كان مع الشيخ أحمد التجاني مرافقا الخليفة mu ne daana nekk di ànd ak Cheikh Tidiane Al Khalifa wa kaana yuqaddimuhu lil kalaam te it daan na ko teel kaddu di ko waxal mboolem ci mboolem amaakin yi. wa hakada xaaluhu maa jamii abnaa Cheikh. te loolu mooy mbiru Oustaz si mboolem doomi Cheikh Ibrahim Niass. mu ne mu ne Baye nee na dee du wàññi dara ci koo xam ne dafa texe waaye noflaay la ci ki nga xam ne dafa jub. kon nag mu ngi wax li nga xam ne alquran moo ñu ko digal mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. waaw mbooloo bi asalaamaaleykum. su ko defee kàddu yi dafay continuer Cheikh Abdoulaye agsi na léegi yaakaar naa mu ngi ci bunt bi euh, kii toog muqaddam la ci Cheikh Mouhamadul Baba Cheikh Moustapha bi tey ñëpp xam ko mooy al imam mu ngi nii teew teewaayam daal mooy teewaayu Cheikh Mouhamadou Lamine waaye yemut ci ay doomam teew nañ te tam doom ci xalifa bi Zeynab Mahi Seyda Zeynab Mahi teew na ci jotaay bi macha allah Seyda itam euh, Seyda Mariam bintu Cheikh Ibrahim teew na ci jotaay bi su ko defee nag euh, Thierno Sy ma la ngeen gis waa ah Cerno Cherif si ah, mu ngi nii teew waa kër Cerno Madani Tall ñëwoon na tey ñëwoon na démb ñëwoon na démb sànni na fi ay kàddu waaye du tere comme teew na tey ko amanul ko oustaz ndax am na émission bu muy def yow tere oustaz teew na fa ay yoon yoon yoon su ko defee moom incha allah dana ko jox kàddu ci askan woowu ak famille boobu bu sell bi représenté waaye dañ jox Cheikh Mama saa mu joxe kàddu balaa boobu su paree ñu jox ko fekk Cheikh Abdoulaye aksi su ko defee ñu doon ko jox kàddu gi mu tëj ko incha allah. bisimilah. mbooloo di ko tàmbalee ci baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mu ngi nuyu njabooti Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ji fi teew yëpp. di nuyu Cheikh Mouhamadou Kabir Deme ak ay rakam. ne Cheikh Mouhamadou Kabir Deme di xaritam di soppeem. ne di nuyu muqaddam yi fi teew ak mboolem kilifa yi fi teew ak mbooloo mi fi teew yëpp di masawu ñëpp ci tiis wi nga xam ne si suñu kaw la dal ñun ñëpp waaye nag mbiru yàlla moo demee nii والذي خلقكم moom waxoon na moom yàlla ne huwa alladi xalaqakum min tinin summa qada ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun moom yàlla ne mooy ki leen bind ci ban topp mu dogal ab ab ci dund gu nekk mu ne ak app gu ñu tudd ci moom ci jeexu adduna si topp ngeen di am sikki sàkk waaye nag ne ñun li ñu sante yàlla Baye Niass dafa radiyallahu anhu dafa wax ne ku liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne texe nga texe goo xam ne taxaadi dootu ci topp mu ne oustaz Ahmad Ba ku liggéeyal yonentu yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku am mayu yàlla eh, itam ndax képp ku nekk ci waaru Mawlana Cheikh Ibrahim di ci liggéey mu ne ba dogal gu mel nii fekk la ci mu ne loolu kat ku amul mayu yàlla doo ko am mu ne oustaz Ahmad Ba mu ne li nga xam ne moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla seen xol ak seen jëf lay xool mu ne oustaz Ahmad Ba xolam rafet na jëfam rafet na ku ne xam na mbaaxam ak laabiram mu ne kaddu yi muy yëkkati du gudd dañ koy tënk rek ne mu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla may kër fa yàlla ca aljana mu dëkkaaleeg sëriñam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ne moom mi nga xam ne Oustaz Ahmadou Ba na ko ne ba tëdd ci suuf yal na ko yàlla gërëm yal a ko yàlla gërëm bu baax ci barke Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu loolu moo doon kaddu yi sëñ ba ngi nuyuwaat ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa mi ngi nuyu mbokku jullit ñëpp. nee na mi ngi jaale ci turu Thierno Madani. mi ngi jaale xadaratu Ibrahimiya nee na ñëpp bàyyiwul kenn nee na mi ngi jaale mbooleem ci jaan yi mi ngi jaale jullit ñëpp nee mi ngi jaale jullit ñëpp nee na képp ku doomu aadama nekk ci kaw suuf ñu ngi lay jaale oustaz Ahmad Ba da ñàkk bi na indi benn seet benn seet lañ soxla fii jullit ñëpp ñoo ko bokk nee na xolam dafa fees lool ndax dafa bëgg oustaz te mu xam ko te mu yàgg ak moom lool moo tax li mu bëgg wax mënu ko wax. nee na ñëpp seede nañu ay émission yu bare bari yu mu def ak moom ci làkk tukulóor bu leer naññ ci ci TFM. mu ne tey suba téléphone am. partout dans le monde ñoo koy woo di ko jaale oustaz Ahmad Ba. nee na mi ngi leen di jaale yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na di aljanna di dëkkuwaayam nee na mënul wax nag mbaaxam buñ ko doon wax it du jeex nee mi ngi wax yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na aljanna di dëkkuwaayam nee na yàlla na at àllaaxira nekk noppalaayam yàlla nañu yàlla may nuñu ko mu muñee yàlla nañu yàlla mu ñu loo salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah mbooloo mi asalaamaaleykum beneen yoon Cheikh Abdoulaye mi na waaye Cheikh Hamidou itam mu ngi fi moom la mu Cheikh Mouhamadou Amine Baba yónni waaye Cheikh Barham nee na ma léegi ministre bi lay jëli kon yaakaar naa mu ngi ci bunt bi Pam Malick Ndour nee na dafay ñëw président moo ko yónni am na lu muy indiwaale itam dina ma waxee ko noonu am na lu muy indiwaale pour teg ko ci loxo famille bi kun su ko defee kun mënuñ ko ñàkk xaar ndax ndawal président la su ko defee nag euh, Cheikh Imam Konté mu ngi fi gisuma ko woon waaye wëlëree oustaz la oustaz man sama wax ci moom ne gis naa ku tabe ba sonn waaye gisuma ku mel ni imam Konté ak Cheikh Abdou mm. ba pare mu ne ah dëgg waaw Cheikh Dramé dëgg la léegi nag wax na mas maa wax tamit ne ma bi may bi may bi may nekk Sacré-Cœur soxlaa soxla néeg imam Konté dafa génn néegam dafa génn néegam jox ma jox ma ko moom génn ci biti maanaam balaa balaa moo dem Mermoz ki ko njëkk ko jox néegam mooy imam Konté te daf ko defoon rek ngir yàlla ak bëgg bàññees radiyallahu anhu seq nañ lu bare bëri loo xam ne kenn mënu koo wax taali seen taalibe itam jaxasoo nañ torop moo tax comme mu ngi fii ñu koy door a gis danañ ko jox kàddu moom itam ndax ni mu woon sëriñ bi sunu waa kër maam borom Touba yi ñoom it am na ku fi teew ku ñuy wax sëriñ sëriñ Mouhamed Seck nee na doom la ci soxna maam Bousso Mbacke mu maam sëriñ Saliou macha allah teew na ci jotaay bi moom tamit mu ngi yëgal mbooloo mi ne mi ngi ànd ak jullit ñi ko xadara Ibrahima ñàkk bi ñu ñàkk bi ñëpp moom tamit yàlla ko yàlla fay jërëjëf jërëjëf imaam Konte imaam Konte mu ngi seen ginnaaw imaam Konte na ñëw nii na ñëw nii day xar ah, ah. naka pame naka caméra yi topp rek ah, imaam ñëw nii bismillah mu ñëw nii 나 예뻐요. 아, bismillah. 밤양. teel ma saatu micro bi gars yi dañ koy yëngal rek. imam bismillah bismillah jagal ko micro yi waaw ana fi jaam ah bismillah bokku ñëss baax la waaw nga bëggoon ñaari baax ci ay seen ah bismillah suñu maam paré rek ne ko suñu maam paré rek ñu jël mbokk yi alhamdulilah mbokk yi alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un comme ni ñu ko yàlla digalee. Cheikh Ibrahim préparé ñu si ñun ñëpp. parce que Oustaz Ahmad Ba bii nii génn àdduna bu ñu waxee loolu ñun dégg nañ loolu. ndax daan nañ si waxtaan bu baax. léegi Mouhamed al Misri nee na. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko taalibe Baay waxee. Mm-hmm. mu ne bokkut ak ni ko ñëpp di waxee. Mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ne ñun bu ñu waxee inna ñu ngi jundi ahadiyatu lillahi mu ne muhammadiyatu la wa inna ilayhi mu ne ahmadiyatu la rajiona mooy xilaafa mu ne ñun noonu lañ ko déggee moo tax bu ñu ko waxee tarakki lañ ci ustaz ahmad ba bii nag li mu nekkoon ñun ñëpp xam na nekkoon koo xam ne li ma gën a marqué si moom te dama koy wax fu nekk mooy ñàkk complexe si bëgg baay Allah ñàkk complexe si bëgg baay am na ñu bëri ñu bëgg baay mais dañoo am complexe Oustaz Ba amutoon complexe si bëgg baay xam-xam bi mu yore woon fépp fu mu dem benn minute bu ko amee da xam ne taalibi Cheikh Ibrahim tànnoon na xam-xam yi ñëpp am am na ci loo xamante ni kenn amu waaye dafa bàyyi woon lépp xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mooy jëmmi xam-xam mu jël xam-xamu bàyyi rek lay waxee. dëgg la waaw. wax naa keroog këram te loolu dama koy répété ma ne tey bayitu bàyyi ñu bëreen koy jàng di ko jàngal. waaye Dakar fii ku njëkk a siiwal mooy Oustaz Ahmad Ba. mooy jàngale bayitu bàyyi ba nit ñi bëgg bayitu bàyyi. loolu rek doy na ko nag mbir. doy na ko teraanga. fa yàlla ak sa Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ndax Cheikh Ibrahima moo wax ne diiwaanam yi mooy samaratu xayaati yi mooy sama meññentu dund meññentu dundam nag tasaare na ko fruit bi ci àdduna yëpp yal na ko ko yàlla teeroo te loolu amul sikk te li ñuy wax mooy naqala wa sirruhu ma nuqil wa salaamu aleykum doxal waaw jox ko mu wax jox ko micro salaamaaleykum mbokk mi. gars yi ñëpp ñu toog Amar Seck waa ji ci njabootu maam borom Touba. waa ji ma ko. mu ne mi ngi nuyu mbooloo mi yëpp. waaw mbooleemi njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim. ak mbooleemi taalibe ak mbooleemi kër kilifa diina mu ne mi ngi wax jullit ñëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne kàddu yi sax kàddu gudd mu ne ndax li xam ni moo fi jógee ko tey mu ne ñëpp ko bokk te kenn ku ci nekk am nga ci sa wàll mu ne rawatina mu ne moom dafa jàpp sax ni ñoom njabootu maam borom Touba ñoo ci ëppale ci oustaz Ahmad Ba ñëpp mu ne lu tax mu wax loolu mu ne bëri na lool ay sëti maam borom Touba yoo xam ni moom oustaz Ahmad Ba mii moo leen jàngal waaw te lii sëtu maam borom Touba moo koy wax ci mbooloo bi ngeen dégg mu ne bëri na ñoo xam ni dañuy dem guddi ci këram tëju ak moom mu leen di xamal mu ne loolu ñu bëri mën nañ koo seede mu ne moom nag digganteem ak oustaz Ahmad Ba képp ku miin Maghrib boo ñëwee ñoom ñaar ñooy ànd mu ne bu ñëwee li muy njëkk a def daf koy woo ñu nekk ci otelam balaa muy ñibbi mu ñëw këram mu ne Serigne Saliou moom doomam bi mu jur daf koy nettali daf mu ne daf ñuy nettali dara ci moom mu ne soxnaam dafa tollu diggante mu ne ñu ne ko diggante bi du taxaw parce que dafa amee fibrom mu ne moom mii mu woo oustaz Ahmad ba téléphone mu ne mu ne ko sama soxna soxna Kumba dafa tollu diggante te mu ne gaa yi wax nañ moom ne du am doom may a koy may da ngeen may da ngeen koy may lu leen mu ne waaye li ma sama loxo na mu ne waaye da ngeen koy may mu ne oustaz daf ko ne loolu du dëgg soxna Kumba dina am doom te dina amaat doom mu ne Oustaz Ahmad Ba nekko ko Serigne Saliou ñaata nga ci bëgg mu ne mu ne ko su ma samoon damay am 28 Serigne Saliou mu ne Oustaz ne ko di nga ko am mu ne ëmb boobu ñu waxoon ni du am nee dafa am doom muy Serigne Saliou judd na amaan na rakk soxna Saliha judd na mu ne loolu nag li muy tegtale mooy ijaaba gi nga xam ne oustaz Ahmad Ba am na ko te lépp mi ko amee ci ragal yàlla mu ne mën nañoo wax ne ñu produit la boo xam ni ñëpp a ko bëgg effectivement. te jaay na te jaay na. li nga xam ne li nga xam ne. mooy fayda tijaaniya yëpp ci li tuuti. mu ne fépp fu mu musa taxaw. wala mu toog ko ku xamul Baye xamul Cheikh Ibrahim sax. di nga jaar ci Oustaz Ahmad Ba. nga jaar ci Oustaz Ahmad Ba. bëgg Baye faw. bëgg Baye faw ndax Oustaz Ahmad Ba. ndax moom. ndax moom idole la. idole la ci mbooleemu taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim. nee na mi ngi dénkaane mbooloo taalibe Baay. taalibe Cheikh Ibrahim. dafa war a yaatal. dafa war a yaatal. ndax Baay. ndax Baay. dawul tijaan rek ko moom de. dawul tijaan yi rek ñoo ko moom de. wala ñeseen rek. wala ñeseen yi rek. Baay dafa doon yonent bi sax. nee na Baay dafa doon rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam jërëjëf Mbàkke Balla. te loolu. wax na ko. te nee na ci àdduna la koy waxee ñëpp di ko dégg. nee na moom mbëggeelam ci Mawlaana Cheikh Ibrahim. ñu dëkk Medina yëpp xam nañ ko. dem na ba Kassina ci Nigeria ci gàmm Mawlaaya Cheikh Ibrahim mu ne papa Cheikh bi nga ko gisee daf ko ne fan nga jóge mu ne ko Fass laa jóge mm. mu ne nga jóge Pape Cheikh ko nga jógee ci Cheikh Tidiane ñëw ci Cheikh Ibrahim mu ne ma ne ko preuve d'amour kese la woone mbëggeel ci Maolana Cheikh Ibrahim rek bàyyi nag ni mu ko bëgg moom doon gi mu doon Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci mbindam ci meloom ak ni mu yaree kon Oustaz Ahmed Ba moomu doon loolu waroon nañu taxaw fii. waroon nañu taxaw fii. ba jant bi sax di daanu ba jant bi sax di soo ci sunu kaw fii. te duñ ko yëg. te duñ ko yëg. mbooloo mi mbooloo pexe mayewu ko. ko. moom nag bëggoon na bàyyi. moom nag bëggoon na bàyyi. dina xam bëgg bàyyi lu mu jëriñ. waaye wallaay dina xam bëgg bàyyi lu mu jëriñ. baaxoon na lool. waaye ma nga jëm fa mbaax amee jërëjëf Mbacke Bal. képp ku ko bëgg. képp ku ko bëgg. ci melokaanam ak jikkoom ju rafet la ko bëggee nee na mi ngi am méttit nag ngi sant yàlla waaye mi ngi sant yàlla itamit. naqarlu bi mooy. naqarlu bi mooy. bu doon sago mu koy gis ñiy gisante daa iman. ak yàlla nee na yoon loolu nag yàlla deful ko moom. waaye. waaye. li may ko sant yàlla. li sant yàlla. gëm naa ni. mooy gëm na ni moom. tey buñ ko robee. tey buñ ko robee. ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass la jël amu ci benn sikk. mi ngi sant yàlla bu baax. kàddu yi gudd na. waaye kàddu cofeel la. mënu koo ñàkk yëkkati ci mbooloo mi. oustaz du mës a découragé. si nekk di liggéeyal Cheikh Tidiane. ci nekk di liggéeyal Cheikh Tidiane. ci surafaaw ci ci ci surafaaw yi. bëri na ay sëtu Cheikh Tidiane yoo xam ne mu ne bëri na ay sëtu Cheikh Tidiane yoo xam ne. fekke na moom fekkee na. si hôtel ci hôtel. Fès Fass. da leen daan tëbb si yàlla. da leen daan tëbb daa iman ci yàlla. wallaahi al azim. nee na moom mu ngi gëy ngi. te bu demee te bu demee. ci ziyaara yonent bi ci ziyaara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gàtt gàtt. dina taxaw ak kenn. dina taxaw ak kenn jaay ko produit Cheikh Ibrahima. jaay ko produit Cheikh Ibrahima. waaleykum salaam jërëjëf. bismillah su ko defee mbooloo mi. léegi kàddu yi presque jeex na dañuy jox dañuy jox président rek président président ministre bi su ko defee ñu jox ko mu wax président Cheikh Abdoulaye Baba yónni su ko defee mu tëj jotaay bi su ko defee ñu yewee mais moom na jël Bravo. Quem ganhou? Inês ganhou o frio. Inês ganhou o frio. Ok, bravo. Tá bom, vai, como é lá. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. sant yàlla yàlla mi nga xam ne moo ñu wax ne waaw su leen nag yu mel nii dalee dee leen wax dee leen wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tey lii nii xew-xew bii xew ci umma islamique bi yëpp la xew kenn ku nekk rek fi nga nekk mën ngaa jaale oustaz sa bopp kenn ku nekk rek fi nga nekk mën ngaa jaale oustaz sa bopp ndax kenn ku nekk ci ñun rek am na loo xam ne boole na ko oustaz boo toogoon fii ba suba di wax du jeex ci liñ xam ak ci liñ xamul dañuy ñëw léegi sëriñ Cheikh Abdallah mi daf maa wax wax bu daw yaram mu ne ma oustaz dëgg dëgg dëgg taalibe Baye xaqan la te nit ku maandu la te nit ku liggéeyal Cheikh Ibrahima Niass kon loolu ni ko sëriñ si xamee loolu la ko ñenn ci taalibe yi xamee te ku ñëw ci jotaay bii da nga xam ne dëgg dëgg ki dem wàññeeku la ci xadara bi wàññeeku la ci diinal islam waaye nag yàlla mi ñu joxoon oustaz moo ko moom moo ko jël tey fu nekk nit jugee ne fa ñëw te ñi koy xaar Kaolack boo demee moo ëpp ñii foofu kon loolu li muy wane mooy mbaaxaayu oustaz monsieur le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour mu ngi fii ñëw teew teewal premier ministre Amadou Ba kon relation oustaz suñ koy wax ci biir taalibe yi ak ci administration bi ëpp na loolu man naam ñeneen ñu ngi fi teew ci ay directeurs ñoo xam ne xamuñu leen sax waaye jëflante bu rafet bi nga xam ne oustaz ñëpp la ko doon jëflante kenn ku nekk rek boo toogee fii mën ngaa wax teraanga boo xam ne oustaz jëflante na ko ñu waaye gannaaw jëflante yooyu yëpp wala lu jiitu jëflante yooyu yëpp jullit xaqan la taalibe Baay xaqan la nit koo xam ne nii guddeem yëpp daf koy jàngale yëpp ñi xam oustaz yëpp laa la wax vingt deux heures fi mu jotee ba six heures di matin dafay jàngale dars ñu bëri ñiy jël ci moom dars heure yooyu lañuy ñëw kon nag borom xam-xam bu mag moo dem li ma waxoon fii dem mu ne bokk na ci asatise yi nga xam ne nii dem nañ de waaye ñu ngi jàngale ba léegi bari na ñuy ñëw di jël si dars waaye am na ñuy toog ci internet bi di jël dars moo xam ñu bokkul ci kër gi moo xam ñu bokkul ci kër gi kon nag mi ngi jëm fu baax amee njëriñ yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana léegi nag oustaz dem na waaye jëfi oustaz bi dem mukk ndax oustaz defar na ay asatise yu mag a mag yoo xam ne atam yu mujj yi bu toogee sax moom du wax ñooñu ñooy wax kon nag oustaz moom la jëmmam dem waaye jëfam mi ngi fi te ñim doon jëflante yëpp bàyyi na fi ñoo xam ne mën nañoo jëflante ak moom sëriñ bi kàddu yi lañ amoon yu ñuy wax boo teewee ñun dañuy yëkkati kàddu ci turu taalibe Baay yëpp jaale la ndax fii nii ñu toog yàlla dafa def ne ba Lamine moo fi nekk représentant xalifa bi te xew-xew bi bi mu amee xalifa bi dafa jokkoo moom bi mu jokkoo moom wax moom mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ebal mbooloo doomam mu ne naa ànd ak moom ñu ñëw fii teew ci turu Ansaarud Din kon nag ci turu mboolem taalibe Baay yu nekk ci région de Cap-Vert ñu ngi la koy jaale ñu ngi lay jaale sa taalibe ñu ngi lay jaale sa soppe ñu ngi lay jaale nit koo xamante ni ku bëgg Cheikh Ibrahima ma fekkee ci 2018 ñi toog marok yaa booy Seyda nga fa ma ne ko oustaz man de danaa ñëw yaa booy Seyda mu ngi fi mu ne ma fan ma ne ko fii nii ci Maroc mu ne dafa am conférence bu muy dem waaye balaa muy dem ci conférence bi ci yaa booy lay njëkkee bi mu duggee li mu njëkk a def su mi dàlla mi raam fóon loxo yaa booy yaa booy ne ko Ahmed Ba Ahmed bàyyi nga ma mu ne ko abadan man du ma bàyyi bàyyi te yow yaay bàyyi kon kooku nit ku bëgg bàyyi la dem na kàddu yi lañ amoon pour seede ko dara gënte rëy nag ni jullit xàqal dara gën a rëy ne taalibe Cheikh Ibrahima xaqan la amul kenn ku mos a wax ne oustaz mos na maa gaañ ci waxam wala mu gaaruwaale feneen lépp lu muy wax Baye nee na yonentu bi nee na Cheikhu Tidiane nee na ma nga dem nag ci Baye mi ngi dem ci Cheikhu Tidiane mi ngi dem ci yonentu yàlla na ko yàlla ci àjjana yi gën a kawe kon nag dañuy jox monsieur le ministre kaddu yi mu jotal kaddu daal gouvernement bu Sénégal mu jotal mu jotal kaddu daal li nga xam ne nii mi ngi jugee ci premier ministre Amadou Ba ak ci président de la république incha allah su paree ñu jox sëriñ bi kaddu yi wala monsieur le ministre avancé fii da ngeen yéen yéen ñii presse yéen koy wax loolu. xaaral xaaral xaaral xaaral il faut ñu organiser fii quoi xam nga aussi problème bi mooy c'est-à-dire borom borom téléphone yi xam nga aussi gars yi bu ñu bëggee taxaw monsieur le ministre da ngay avancer fii tuuti noppi leen dégloo leen. c'est bon c'est bon caméra yi ñoo a wax. di nuyu ku nekk ci turam ak santam. di jël nuyu bi journaliste. di ko teg ci loxo sëriñ bi. voilà noppi leen noppi leen. suñu sëriñ Mawlana. sëriñ koy nuyu. sëriñ bi dañu bàll taw. noppi leen. di wax ne. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki fi jógee yàlla yàlla xare ko ajjana yàlla yàlla yàggal ferekam suñu loxo te waaye mu fi teew nag dama fi teew ci ndigalu président de la république ak ci ndigalu premier ministre sëriñ dañu baal pour tuuti rek jërëjëf waaye de l'intérieur bi nga xam ne moom moo yor wàllu cuuj bu xew-xew bi amee dem ci suñu plateforme de communication ñuy xaat kan moo war a mën a dem représenter ko président ñu gis ne Pape Malick kat war na fi mun a ñëw pour ñaari raison bu njëkk bi mooy taalibe Baay la beneen bi tamit ma yokk ko ci man mais kii fi jóge de gis naa ne yàgg na yar ay ndaw yu bëri bëri bëri donc ministre de la jeunesse xale nation donc jaale bi jaale nation bi yëpp la hmm. Sénégal moo ñàkk ndax koo xam ne xamee wuñ ko lu wax lu baax def lu baax ak yar ay nit bu fi jógee loolu Sénégal yëpp moom moo ñàkk donc euh, reconnaissance la woon ci état lu mel nii su amee mu ñëw fi teew loolu su amul woon dina am mbaaxas bu am solo boo xam ne dina dagg ci diggante ki nga xam ne moo doon liggéey Sénégal ak état bi xam ne moom moo fi nekk pour ñëpp loolu mooy kàddu gi yàlla yàlla yërëm ko yàlla xara ko àjjana yàlla Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Tidiane bi nga xam ne ñoom ñoo yaakaaram teeru ko jërëjëf maa ngi leen di sant maa ngi leen di. macha allah léegi nag kàddu gi dañ koy jox Cheikh Cheikh Cheikh Abdoulaye. Cheikh Abdoulaye waxee dafay def ñaan dafay ñaan rek. Cheikh Pape Sarr Cheikh Pape mu ngi fi. Cheikh Pape Sarr mu ngi fi incha allah xam naa bu ñu demee parce moom. waaye ñu ngi koy présenté rek ne mu wane ne mu ngi fi. nee na ma ñu ñaanal ma ñu nuyu ñëpp. kay gis kay de gisuñ de sëriñ mu nekk ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Ibrahim Niass. mu ne Cheikh Mouhamadou Amine bi mu yeggee xeexoo bi ba léegi. borom lu weex lii nii. xool borom téléphone. waaw. mu ne ci ñaanal Oustaz Ba rek la nekk. Cheikh Abdoulaye nee na mu ngi ñuy jottali nuyoo Cheikh Mouhamadou Amine Cheikh Ibrahim Niass. di wax ne oustaz Ba mi jóge fii mu ne di wax ne oustaz Ba mi jóge fii. boo sukkoon ko xamee daal ah, mu ne liñ ko xamee daal. bëgg baay rek lañ ko xamee. mu ne bëgg sëriñam Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass la. waaw te bàyyi moom soo ko bëggee. mu ne te bàyyi boo ko bëggee. da ngay dañuy bi moo xoon rek. wa man yaraani fi jannatil xuldi bila muxnaan dañuy delluwaat ci baytam bi mu waxoon rek képp ku ma gis wala ma sa yaram araamal na safara. kon oustaz Ba mii. mu ne ci meloom. mu la. Mawlana Cheikh Ibrahim ci waxam. mu ne ci waxam. bàyyi la mu ne ba tey. ci jëfam mu ne ci jëfam. bàyyi la. mu ne ci jàngaleem. mu ne bàyyi la. léppam bàyyi la. léppam bàyyi ñes la radiyallahu anhu. ñun li ñu wax fii. mu ne ñun li wax fii. du ma wax leneen lu keneen waxu ko. wax leneen loo xam ne keneen waxu ko fii ndax wax bi yëpp benn la. mu ne ndax wax bi yëpp benn la. mi ngi ci kanam kanam. jaale mboolem umma islami yëpp. sëriñ bi nee na ñu ngi jaale mboolem umma islami yëpp. ci damm-damm bu mag bii. mën na ci damm-damm bu rëy bi nga xam ne moom moo daan suñ kaw. ndaxte borom xam-xam su jógee ci dëkk. mën na ndax borom xam-xam bu jógee ci dëkk. bëri dem na. mu ne lu bëri dem na. waaye alhamdulilah. mu ne waaye alhamdulilah. mu ne ba nga xamee ne. xam-xam bi. xam-xam bi. bàyyi na ko fii. mu ne bàyyi na ko fii. ci ay taalibeem. mu ne ci ay taalibeem. ci ay soppeem. mu ne ci ay soppeem. ba nga xam ne incha allahu. mu ne ba nga xam ne incha allahu. liggéeyam du kenn du ko fàtte. mu ne liggéeyu oustaz ba kenn du ko fàtte ba ilaa mi diin. benn arab dafay wax mu ne haadihi athaaruna tadullu alayna hmm. fanzuru baadana ila al athaari hmm. mu ne lii su benn arab dafay wax ne mu ne benn arab dafay wax ne su ngeen bëggee xam kii lim fi bàyyi mu ne su ngeen bëggee xam kii lim fi bàyyi xool leen jeexitalam yi mu ne xool leen jeexitalam yi kon fii nii mu ne kon fii nii mbooloom bi rek mbooloom bi rek bi fi teew bi fi teew dafay wane ne ki fi jógee. mu ne dafay wane ne ki fi jógee. nit ku màgg la woon. nit ku màgg la woon. nit ku baax la woon. nit ku baax la woon. nit ku jub la woon. mu ne nit ku jub la woon itam. dafay def li muy def. mu ne dafay def li muy def. boole wax du ci boole wax. du ci boole dara. mu ne du ci boole dara. dara bokk ci lu dul jëf. alhamdulilah mu ne alhamdulilah rabbil alamin. mbokkam yi nag. mu ne mbokkam yi nag. ñu leen di jaale. sëriñ bi nee na mu ngi leen di jaarale ci lamiñu Cheikh Ibrahima Mouhamadul Amin. suñ gisee mbooloom bi yëpp. mu ne buñ gisee mbooloom bi yëpp. métit bi nga xamante amoon nañ ko. métit bi nga xam ne amoon nañ ko. wallaahi suñ gisee mbooloom bi dafay wàññeeku. mu ne wallaahi buñ gisee mbooloom mii métit boobu dafay wàññeeku. dootuñ sax am métit. mu ne dootuñ sax am métit. parce que. mu ne parce que. nit la koo xam ne. nit la koo xam ne. alxalifa. alxalifa. Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. gërëm na ko gërëm na ko. Hmm. Cheikha Mariam. Cheikha Mariam bint Cheikh al Islam. gërëm na ko gërëm na ko. xalifa bi mu nekkal nii. xalifa bi mu nekkal nii Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass. gërëm na ko bàyyi tamit gërëm na ko. Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahim Niass gërëm na Oustaz Ba. kon dañ koy bàyyi ak bàyyi. mu ne kon dañ koy bàyyi ak sëriñam Mawlana Cheikh Islam. Oustaz Ba Oustaz Ba. dafa mel ni dafa doon or. mu ne dafa mel ni dafa doon or. ci bàyyi lay dogee tey. allahu rabbi jël yoon. nañ préparé jël yoon. dem incha allahu yóbbu ko. yóbbu ko. mu dem dogi ak soppam. dem dogi tey jii ak soppam bi Mawlana Cheikhul Islam. mi ngi gërëm ministre. mu ne mi ngi gërëm ministre Pape Pape Malick Ndour. ci taxawaayam ci taxawaayam. suñu gërëmee nag euh, Pape Malick. mu ne bu ñu gërëmee Pape Malick ministre de la jeunesse. président la ñuy gërëm. président la ñuy gërëm. ndaxte lii nii. mu ne ndax lii. itte bu mag la. itte bu mag la. te kii dem. ndax kii dem. du ko ndaw du ko ndaw. kon ñi def. ñaan mu ne sëriñ bi nee nañu def ñaan. jàng fatiha. jàng fatiha benn yoon. ñetti salaatul fatihi ñetti salaatul fatihi. fukki xuloo ak benn. fukki xuloo ak benn. ñaanal ko yàlla. mën nañu ñaanal ko yàlla. du yërmande de waaye dem ak Baye. mu ne du yërmande waaye dem ak Mawlana Cheikh Ibrahim. suñ waxee nag dem ci Baye nag. mu ne bu ñu waxee dem ci Baye nag. mooy jëmm yërmande. mooy jëmm yërmande. salaamaaleykum sëriñ bi nee nañu dem Fatiha benn yoon fukki xuloo ak benn fukki salaatul Fatiha. toogal toogal toogal pare toogal. toogal toogal toogal toogal quoi. non non non ñun kenn. amiin yaa rabi amiin amiin yaa rabi. yoon yoon yoon yoon. saa ma saa ma leen jóg leen. ngeen may kilifa yi ñu jàll rek. seen micro bi wax.

Dur mu duray? Sen de. xam naa ñu bëri

Nein, nein. Nein, Mein Brief, mein Brief, meine Angst.